asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 14 janvier 2020 ñu ñëw ak yéen ci yi yëglikaay yi nag tey sunu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi nag fi mu nekk nii daal tey li olof di wax fóotal mbëtt daal da ngay roccil bar Balla Gaye numéro 2 moo fa génn fan yi ci lu ñu jàngatoon ne daal digganteem ak booy Niang bu ko ko kenn waxati bëriwul ak moom tey suba waxi noppi ndax du moromam te defegut lu tax mu war a bëri ak moom mu mel ni ki nag tontu moom du forox wolof yaa ko wax Boy Niang daal xëy na tontu Balla Gaye numéro 2 li leer ba leer daal ca bañ gañ na bañ na ko bëre ak moom booy Niang nee na mu bëre ak man ak mu ñàkk bëre ak man intéressé wu ma nekkul loo xam ne sax lu ma intéressé la li leer ba leer moom man bëre danaa ko def la ca des Boy Niang waxu ko daal nee na moom mooy seet rek lu mu ci bëgg moom la nee na mu bañ ma ak mu bëgg ma laa yemale li ma xam daal mooy moom bu dof dof la ba lekk sama avance moom dinaa ko sol ci fond bi ba mu biiram fees ma jël ca sottil ko ko ba ribbal ko ko maanaam jox ko ci mu lekk ba suur ma taqal ko ci ba mu taq waxi Boy Niang la du samay wax mu ngi ci yëglikaay bi sunu làmb mu ne fa fàng ngardaaju yëglukaay ba di wax ay soxlam beneen combat boo xam ne nii moom ñu ngi ca doon wax day am ak du am ñu naan staff bi ne nañ day am staff bi ne du am muy combat ba nga xam ne lik moo ko tëgg mu war a dox ci diggante ki nga xam ne nii moo di Ama Balde ak Modou Xarañ loo mu mel ni ki nag lig ma nga xam ne nag moo leen jiite ci lu ñu jëlee ci yëglikaay bi di suñu lam moom daa mel ni kàddoom jib na la mu xam ne daal mooy bëggatut ci ñoom ñoo ñu nga xam ne ñoo ko wër kenn yëkkati sa kàddu di wax ci kombaa boobu nee na leen daal noppi leen nee leen pat ndax nag noppi ay wax la loolu wax la yoo xam ne nii mu ngi ci yëglikaay bi di sunu lam ñu jëlee ko fa waaye ba tey bu nu continuer mu mel ni ki nag bu booy ñang ak Balla Gaye dee xëccoo wala Balla du bëre ak moom combat Modou ak Ama ñaan dina amam am coow la nag mu mel ni ki yëglikaay bi nga xam ne moo di la tribune moom daa gis ne li olof di wax ayuwaay jàmmiwaay mu mel ni ki kon foofu daal Gris Bordeaux moo fa nar am occasion boo xam ne nii day occasion en or la ko yëglikaay bi tuddee ndax nag ñoo ñu ñuy wax combat yooyu soo amulee dafa mel ni Gris moom du ñàkk foofu mu am fa koo xam ne dina mën a jàkkaarloog moom bëre rawatina ku mel ni ki nga xam ne moo di Balla Gaye 2 la tribune moo xëy ñëw wax ñu ko ñii moom seen combat nar nañ caa jàkkaarloo muy diggante Papa Sow ak Siteu le cinq avril la ñu fas yéenee bëre ci promoteur ba nga xam ne mooy Pa Abdou Fall borom Paf production waaye balaa loola nag jàkkaarloo danañ ko def waxante ay wax yëglikaay bi nag danañu daal li leer ba leer moom àjjuma jii di ñëw day la ñu fas yéenee nag jëkk a gise seenub gise waaye ñeneen ñoo xam ne moom ba ñu gisee kera tàngun ne jër muy diggante rëg-rëg ak ki nga xam ne mori tafaatin yëglikaay bi tamit ñëw na ci ñaar ñooñ daal kera seenub gisante moom foo ko takk ci wex romb na ko wex xat la def keneen koo xam ne nii moom daa wex ba yëglikaay bi jàpp na fi mu nekk war na faa romb mooy Tyson 2 dix victoires deux défaites ci fukki at lii la def yëglikaay bi xëy ñëw wax nu lu mel ni kii noonu ñeneen ñoo xam ne ni moom seen ab écrit ka ko jiite woon dana fes dugg Amérique muy waa mbuur mbooloo kenn defut loola nag ko dul basoka moo tax yëglikaay bi xëy ñëw ne Jordan wala kii nga xam ne ni day moo di gàddu Touré xanaa ñoom ñaar ñii ñoo nar a jël flambeau ba nga xam ne moo di écrit ba ñuy wax mbuur mbooloo te basoka sañtoon ko xëy xëy tey jël avion dugg réewum États-Unis toog fa jàpp boppam yëglikaay bi tey moo xëy ñëw dina ko wax waaye leneen loo xam ne nii moom ay lambi simple la ju amoon fa nga xam ne mooy ca mbam le 10 la commencé woon ba le 12 nee nañ nag ku ñuy wax Babacar Sarr daal bu ñoo jor moom moo jël la nga xam ne nii moom moo di tournoi ba yëglikaay bi ñëw na ci moom waaye leen loo xam tamit yëglikaay bi ñëw na ci tey mooy xale boo xam ne xëy na dalal ko muy ki nga xam ne nii mooy guy gi quatre-vingt-quinze guy gi quatre-vingt-quinze mu neex ma ngeen xam saf xorom sàpp daal mu ngay wax la nga xam ne nii moom moo di ay soxlaam foofa nga xam ne daal mooy ca rubrique ba ñu ko dalal mu mel ni ki daal fi mu nekk nii moom loo ci mën a dégg làmb ji yëngu na sàjj na coow laa ngi ne gadd bu ma la ko waxati jaa ngi mel ni nii tulleeg màlle ku ne yaa wax ji moom fa muy mujjee mooy arbitre soufflé rek jàkkaarloo bëree ku man daan ndax nag bëre mooy baaxu góor woykat ba moo ko wayoon kon mbër yi bëre leen Leewtoo TV nuyu di leen gërëm leen sant Babacar ngeen àndoon si rafet line bi nu ànd ak yéen si jàngatu arène bi rafet na waaw merci Ndeye Coumba Fall maa ngi lay fay nuyu ñëpp ñuy suivre ci Leewtoo TV waaw blouson yi xam nga rek soppe yi ñoo jaar xam nga di leen nuyu di leen ziar ku mel ni Aliou bu yankaaw nekk marché Thiaro yi di sama rak sama xarit moo ma jox blouson bi ensemble la ma koy nuyu di ko ziar moom ndeysaan danaa ku bëgg blouson bu baax rek demal marché Thiaro yi laajteel bu kenn du moom waaw loolu dee na Babacar nag ñu jékkul nag suñu mbokk internet di ndax démb dégg nu woon jàngatu euh, kii bi revue bi donc nekkul suñu coobare problème technique la xanaa du leen di fàttali rek nag euh, am na ay événement yu amoon si week bi événement yu neex su mel ni drapeau Mata boobu amoon dimanche feenee si euh, stade Iba Mar Diop tegoon fa mise ou 5 millions amoon aussi ay combat diggante kaaw kaaw kaaw gourdin ak 2 2 giga am na tamit combat adafas ak ki nga xam ne mooy bébé bis ci weekend bi la amoon ñu jégluwaat rek comme ni ñu ko waxee rek xam nga affaire yi moom des fois mooy da defar ba pare yaakaar ne kii na mu jaar à côté mais xam nga combat yàlla may ko ndam ci kaw ki nga xam ne nii moom mooy bébé bismi mais bébé bismi tamit bu fekkente ne ñun am na lu ñu koy wax rek wala lu ñuy jàngat ci combat bi mooy yaakaar naa la mu def kera ba lamb sosoo ba tey Babacar mosu koo gis wërante ay gàllaaj ndey kumba bu la mbër yi il faut ñu xam ne concentration concentration dafa bokk si làmb làmb boo ci duggee amal concentration jàngata sa adversaire fan laa koy jaar lan laay def lan laay def xool ay manière am yu muy def mais yow yaa ngi ci ay mystique yaa ngi yeneen yoo xam ne ba loolu déconcentré la ba mu jaral la nga yéegi granadee nag moom mais ni mu supporter te loolu man làmb ji mënoon na fa yàqoo il fallait que nit ñi wàcc intervenir ay Pape Abdou Fall ay Assane Ndiaye ku ne wàcc na kera ñoom Malick Ngom xam nga te yooyu mën na ñàkk il faut ñoom ñu xam ne lamb ji seen gagne-pain la gën ko fekk wekk gën ko respecté xale la bébé bis mi Ada Fass daan na ko loolu mooy lamb na dem liggéeyati seen carrière jeexagul loolu loolu moo amoon ci samedi bi bu dee dimanche ba tamit ki nga xam mooy Mbaye Yékini moo ñëw arène nationale indi fa ñaari xale yoo xam ne espoir lañu muy deux siga ak ki nga xam ne nii moom moo di Kaw Gourné mais Kaw Gourné itam vraiment deux loo xam ne nii itam na trop kere ci waa parcelle nee naa waa parcelle moom a xam ne mooy euh, xale bi ñu koy féliciter di encourager moom xale la moom itam na liggéey waat macha allah bëri na mbooloo trop dimanche bi ba tey ci eh, sëñ bi Ibrahima Diop Matar ba ministre des sports ñu koy nuyu moom itam Pape Abdou Fall ak ñi mu àndal delloo ko njugal ci 6 million xam nga mu nekkoon loo xam ne nii Franc jël ko ci kaw Boy Faye ñu félicité Franc di encouragé booy Faye mais Boy fay bu ñu amee lu ñu koy wax parce que bëri bu ne des mënees na ko jàngat na gën a xam ne moom day bëre bëre dee su ci fo yaa ngi dégg Franc du mbër mu ñuy fowe ndax fonk na entraînement te sérieux na kon booy bëri ak moom am nooy taxawek nooy doxe même bu la daanul itam dina la gagné ci ay foofu lañ mujjee yaa ngi dégg kon ñu ngi félicité di encouragé di nuyu Fallou bi nga ak bi mu fiy jógee ak Maroc <laughs> mu àndal ñëpp mais bu ma nee ministre Matar Ba faw ma tudd Saliou Khoule ndax Matar Ba ku ne xam ne ne Saliou Khoule mooy doomam yaa ngi dégg di nuyu foo Cissé ak ñëpp ñi nga xam ne nii ñoom ñoo war ministre des sports ginnaaw nag bu ñu ñëwee defee round up lu amoon si weekend bi ndax problème technique bu nu amoon dem ñu ñëw nag si actualité bu mardi bi euh, tey nag sunu laam dafa xëy euh, dalal ki nga xam ne mooy booy Niang le fils de dogal moom dafa xëy daal mel ni kuy tontu Balla Gaye nee na Balla lépp lu muy wax si moom rek intéressé wu ko te nee na euh, nee na su bëggee tamit ku ko tagg moom du jaar si moom te teg teg na si tamit nee na Balla bëreeg moom ñàkk bëreeg moom yëpp lépp dina am combat foog daal Balla Gaye ñëw mu mun ko diw kaasu fond wi kay xam naa ne bu ko ko ci joxee mu lekk ba suur da ko koy diw li ci des. waaw nga wax na si combat bi nag parce que nag vraiment sonn nañ si sànnante kii track bi. waaw lii mooy làmb làmb li yàgg na ci. waaw ku bëgg a yéeg la ak ku yéeg ba ne ca kaw may ma loxo duma la may loxo la war nga maa may loxo waroo maa may waruma laa may loxo dinaa la may loxo dooma may loxo yooyu moo fi nekk ci làmb noonu lay doxee ba ba combat di am. ak lu mën a xew bés dina ñëw ñu bëri xaw ma saison bii lay doon xaw ma mais booy Niang bu fekkente ne li ko dal la Lac de ah mu jóge ci am na lu mu ci jàngat même bu bëriwul ak Balla Gaye nii su amaatee comme bu boppam bés mu bëri ak moom mu bëri ak Balla Balla nag daa yéeg ba ca sommet ba yaa ngi dégg te mbër des fois staff bi ñi la war mën na laan bu ko jëlee bu ko nangam yooyu yëpp day am yaa ngi dégg mais Balla man xam naa ne ba ñu la bëri ak booy Niang Balla Gaye 2 bañu ko de waaye nag làmb dafa am ñu la yore yore woo sa bopp yaa ngi dégg booy ña ngi bëreeg Balla avantage am la parce que li tax mooy moom bu bëree ak Balla Gaye 2 yaakaar naa ne tey bu ñu bëree woon tey bu ko Balla bu ko Boy Niang daane fa mu mën a yóbbu Boy Niang ci làmb sori na de waaye tey li ñuy wax dañ naan Balla am na ñu naan Balla dàq bëri su fekkente ne Balla dafa daan dañ naan ah kon ñooñu jël wax loolu dañ naan xamoon nañ ko yaa ngi dégg mais làmb coow la baaxoo waaye nag naan waxoon na ma ko noon na ma fonde bi kaas bi dese ngi nii moom moo moo pour moom la te bu ñëw dama koy fekk këram bi yoon nag nee da ko koy jox bu lekkee ba suur sax mu ko ci yaa ngi dégg ko taggali maamam waaw ko dina métti kay waaye man sa morom def ko ko waaye diwante fonde ba moom waaw fonde ba day xam naa pikin moom dina fondem la yor di ko jox di ko jox waa géej waaye moom booy ñang te pareegul nee na bal laa des loolu am na solo Babacar Babacar nag ñëw na si beneen combat boo xam ne bëri na bi nga xam am na kenn koo xam ne bokk na si li Nicolas Enco demoon na seet li Nicolas fee euh, mag bu nekk euh, Saint-Louis nee na daal li Nicolas jox na ko ay dénkaane yu bëri nee na ko euh, combat bi daal bëggatul staff bi kenn du si wax dañ ko bàyyi daal fii ak ay fan yu néew dina def déclaration def benn si ni nga xaar nag sortie boobu nag Babacar. waaw loolu day mooy li war a am parce que li tax tax ma ne mooy li war a am mooy parce que ku ne yaa ngi wax ñuy jaar gauche ñuy jaar droite coow nag su bëree dëgg mën naa riir yaa ngi dégg parce que fu coow bëri rek des fois la nga soxla mën nga ko fa bañ a am di kon coow li bëri woon na ci combat bi day am ak du am wax nii ñi ne sax bi lii lañ wax ñi jaar ne kon lig defe naa bu ko nit seetee mu dénk ko ne ñoom ñiy wax ñëpp nañu noppi waaw parce nag bu ko waxee war nañ ko mën a def parce que moom moo tëgg làmb ji moom mooy borom ligue Nicolas Enko moo génne xaalisam moo fay mbër yi kon defe naa ne ku ciy wax nag bu la nee noppi ci war nga caa mën a noppi nag jëfe ndigal bàyyi ay tere kantaat fan yi dina génn pour wax li li liy nekk loolu itam ñu ngi koy xaar waaw waaye ñun suñu sañoon sax bu koy wax yàlla nekk ci biti déclaration boobu yàlla na yàlla def bu koy def mu defe ko fii mbuur biir këram wala mu defe ko fii ndakaaru ñun loolu lañ koy ñaanal parce que lu tax mooy encore une fois rek olof a ko wax ku la yëkkal xël nga yëkkal ko gang ñoo yemi gàjjoon li man dafa xam nga nit ki ci li ngay liggéey nit ki bu fekkente ne daf la ciy jiitu mag la ëppale la lépp ba pare jox la ci respecté la fu mu la fekk yëkkati la ah, am na xat-xat yoo bu ci nekkee nag war nga caa xar sa tànku tubéy ba mu yegg loolu moom moo ñu boole man ak moom te loolu defe naa it moom ma boole ak promoteur yëpp ko waaw. journal bi nag ginnaaw nag Boy Niang ak Balla Gaye yi nga xam ni sànnante ay track mbër bi nga xam nag moo sànnal VIP fan yi yëpp nag mu Reug Reug ginnaaw mu dàq jee bomba jee ba sonn wëlbatiku na ndàkk ci ki nga xam ne mooy tafaatin bomb kay maanaam rëg kay fi mu ne nii moom itam xam naa yatam la yor rek di leen wër moom no ah waaw moom li ma la waxal sànq daa bëgg a teñ ne ko doo yëg doo yëg ci garab gi lekk mu ne force dina lekk ñu ne ko duñ la may loxo loolooy coow li di la jëkk attaque dal ci kawam bomb riposté mu fekk rek tafaatin Iba Mar Diop tënk ko ba tafaa ñu ne déet ne waaye fan ñi gis nañ ko ci vidéo nee na muy Balla Gaye muy Modou Lo ci ni mu lëpp doole waaw bopp parce que la muy liggéey la xam daa bëgg yéeg moom itam ci ñi bëgg a yéeg la bokk te jàpp na ne daa war a yéeg te jàpp na ne yéegukaay bi xam nga yéegukaay bi moom garab ga ña toog ca kaw toog di lekk Balla gay la Modou Lo la Tapha la Ama Baldé la Gris Bordeaux la Bombardier la ñoo ñaa nga ca kaw ak ñoom Eumeu seen ñii nag dañ leen ne di ngeen ñu may ñu yéeg par A ou B Ama moom jox nañ ko loxo moom de moom moom am na ko ko wala tooñ mu yéeg joxoon nañ ko loxo waaw moom Lac de Guiers joxoon na ko loxo waaye it da ngay dee ba tas mu jul def lañ doon xaar parce que loolu moo am ca làmb ja yaa ñàkk combat bi rëg-rëg koy jox loxo la ñuy wër waaye ndax jox loxo rëg-rëg wóor na nday ko ba faal dina metti daal euh, journal bi tamit ñëw na tamit ki nga xam tamit euh, Tyson de ki nga xam woon tamit dafa bëgg yéeg lekk woon tamit si garab bi pap nee nañu tamit am na 10 victoire ñaar défaite si fukki at yoo nga xam ne mi ngi koy bëre baabaka tegle ko mbër la Tyson 2 dafa bokk ci mbër yi dañ koy bàyyi dañ ko gaa yi kii koy waxee wallaay la si mbër la parce que làmbam du yomb dana xeex dana bëri te day daan avec la manière te itam yaakaar naa ne ab jëllam ki gis na koo gis ba dul bi ko Elton daane te daf ci jógewaat ñëw teguwaat ci raay bi yaa ngi dégg góor soog na ko fu ne waaye defe naa daaw bañ dajee ci arène nationale ah ku ne gis na la fa xew de waaw du ñeexu ñebbe de moo tax gars yi il faut ñu gestu ñooñ de ay Tyson 2 ñu ci suuf de te dañoo war a yëg guy gi mii dañoo war ak moom mu doon tabu Thiès ama neex sek Forza bari nañu de dañoo bëgg a yëg ci garab gi nañoo bëgg a lekk ci doom yi xaw ma tàndarmaa fa nag xaw ma garabu sump la xaw ma banaana wala new waaye yëg daal lañ bëgg a def Eh, Babacar suñu jógee nag suñu laam lay dem fi nga xam ne mooy tribune tribune nee nañ nag comme que ni ngi laam-laamee combat Ama Baldé ak Modou ak du am euh, dina a am chance pour bëri loolu nag moom xaw a jaaxal si tribune lu mu bind Babacar Gris moom pour man masta ñàkk chance bu bëri parce que xam lu tax Gris xanaa des su defee année balance dama naan des ci moom lay doon par rapport ni ñu gis ak carrière am yaa ngi dégg mais combat yee taxaw ak mu yàqu pour man même bu taxawee sax du tere moom dina am adversaire ah parce que Gris yaakaar naa tey su bëggee bëri digganteem ak Balla Gaye de làmb da la seen diggante parce que moom daa ne Balla daanu ko te ne bi yoon su Balla ñëwee da koy daan ci deux ci deux minutes loolu la Gris wax dégg mook Bombardier revanche la daa war a am mook Lac de Guiers de combat jànq la mook Tapha Tine mi bi Medina la loolu la Papa Dieng wax sax si Leewtoo TV nee na combat bu neex lay doon Tapha Tine ak Gris Bordeaux. làmb la dër bi la Tapha Tine Gris Bordeaux bu ñu bëggoon làmb ji tamit am coow dëgg dëgg dëgg loolu la ñuy tëgg loolu dafay neex dafay neex may da biir Medina ak Medina sax nga may wax yow dafa Tine daa am base Medina te Gris juddoo Medina yaroo fa màggee fa voilà. Babacar nag su jógee si tribune yi dem fi nga xam ne mooy Leewtoo point net point net xamal ni jàkkaarloo bu njëkk diggante Papa Sow ak Siteu le 5 avril la euh, dina am vendre euh, vendredi bi incha allah fee si teeru bi Babacar seen premier jàkkaarloo comme ça journaliste yi xam ñoom lu ñu indi kee États-Unis jógee kee tamit jógee États-Unis Babacar. waaw Papa jaar na États-Unis waa Espagne sax la mujjee waa Papa Abdou fa jaar ñu koy décanté na situation bi ndax moo njëkk taxawal grand combat avant ligue di ñëw combat bu mag bokk yaa ngi dégg mais lu ñuy wax rek jàkkaarloo bu war a mën a neex la parce que ñaari mbër yi ko kon li ñuy wax rek ñi leen di ñi leen di indi parce que teeru bi place la bi nga xam ne nii ay waaw place bu mucc la te monde bi yëpp dañ fay daje parce que hôtel la ba nga xam ne nii ñëpp fay daje kon li ñuy wax rek ñay ànd ak mbër yi nar fa ñëw nañu ñëw def li nga xam ne nii moo leen fa indi gunge seen mbër ci yar ak ci teggin xam nga ñu waxante la ñu war a waxante parce que mbir mi du ndey Kumba ak Babacar mais papa ak la yaa ngi dégg kon daal loolu àjjuma lay am incha allah rabbi yàlla nañ ko fekkete tal ko Babacar nag sa kàddu yoon leen tàggoon leen jox di daje suba incha allah balaa ba mu nuyu sama yaay Meso nuyu sama doom Mouhamed Diouf nuyu Astat ne DG Brahma Cheikh Khadija Diallo di nuyu ki nga xam ni mooy Asek Cheikh Khoucha Seck depuis euh, Italie di nuyu ki nga xam ni mooy Mbaye Seye depuis la France di nuyu Abdou Gueye Baye Fall jàmmagal papa yi si te maa ngi koy nuyu nuyu samay doom Mame Diarra Rokaya Moussa. Euh, grand Fallou aussi maa ngi koy nuyu di nuyu ki nga xam ni mooy waa Parcelles Unité 26 ak Aïcha Faye yaayu Paate Babacar. waaw nuyu nañ ñëpp ziar ñëpp ñaanal ñëpp jàmm mais yàgg maar borom anniversaire bi boroom le treize démb erreur amul ci kii moo tax sa loolu jàllut mais yaakaar naa ne yàgg bu anniversaire warees na ko wax bu ñu dégg ko rawati rawatina Babacar mi nga xam ne yàgg koy wane kon joyeux anniversaire happy birthday to yàgg maar bis bu dellu si moo neex yàlla na nga ko yàgg te balay beneen bay di ñëwaat nag sa 2021 ba yàlla na nga am jeeg bu ne sa kër di la taalali cuuraay ndax nag jot na sàngoo mbàjjum kese mi yàgg yooy wóorul yaa ngi gaañ sa bopp dugal ci sa bopp waa Liberté kaat wax leen ci yéen ak bës ma ca siin fexe leen yàgg takk soxna jot na il est l'heure day teel a am jabar góor day teel a dugg néegu góor góor day teel a dem daara loolu yàqul góor si yaa ngi dégg waaye dama nag sama yaay ne nii jigéen teel sëy teel jigéen daa war a teel am borom kër loolooy yoon mais happy birthday to you bi tamit dama koy wax tey ki nga xam ne nii moom moo di ah euh, sama benn waay bu nekk fa nga xam ne nii moom mooy marché asalem ñu koy wax Tidiane Dabo di doomu ndayu Rimka ndax Rimka kuy doomu ndayam sama doomu nday nga moom maa ngi koy nuyu di ko wax happy birthday to you borom yi Tidiane daabo di nuyu tamit rakkam Seydou daabo yaa ngi dégg di wax ne daal Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm mais saaliw Khoulé masion spéciale ndax nag moom garab gi moom terewu ma yéeg ci daa jàpp sama loxo ne ma yéegal ba toog teg ma ci garab gi di lekk may lekk waaw kon kooku eh, jàmm rek lay war a am ndax ku la yéenewu du la defal loolu mention spéciale à Saliou Khoulé di nuyu ñëpp di ziar ñëpp ñaal ñëpp jàmm Asi Diagne borom nu ak sot mais Aline Ndiaye kenn du yow <laughs> yow yow Aline yaa wóor lay wax nga dëgg coow la ci pindub teen ba ñaamul baag la àllin yow sa baag root na ba nga baawaale ñu ci yàlla na Sénégal am jàmm ba suba incha allah